asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di nuyu nag ki nga xam ne mooy le maraîchage ki nga xam ne nag tubaarkàlla mooy borom duwaa jaabi ki nga xam ne nag mooy borom kun fa ñu ne koo kan la ñu ne alaaj Cerno Moulay Sow tubaarkàlla king of the king king all the king tubaarkàlla nag dina reprendre incha allahu rabbi mardi le 2 mai bu ànd ak dogalu sunu borom tubaarkàlla ñu koy yëgal nag patient yëpp di ko yëgal national di ko yëgal tamit international tubaarkàlla ki nga xam ne nag tubaarkàlla bu ñaanee sunu borom nangu ko ko koy alaaj Cerno Moule Sow tubaarkàlla ci bu bees bi nag tubaarkàlla ngeen la ko àdduna yëpp di koy fekk waaye international bi Sow dina reprendre ba li nga xamante mooy treize mu pause ba quinze heures incha allah daal di ba dix-sept heures nag tubaarkàlla lay doog a terminé kooku mooy alaaj Thierno Moule Sow kooku mooy borom vite fait bien fait kooku nag tubaarkàlla moo yor cuuraay li nga xam ne tubaarkàlla du xeeñ dëmm du xeeñ li nga xamante mooy jinne kooku mooy alaaj Thierno xam ne tubaarkàlla moo jàpp maam lumburu yaataa mooy ki nga xam ne tubaarkàlla ah moo jàpp nag ci daaneel bato la ci Titanic tubaarkàlla kooku mooy alaaj Thierno Moule Sow mooy ki nga xam ne tubaarkàlla moo jàpp le roi haha mooy ki nga xam ne tubaarkàlla na la maréchal dellusi na mbooloo bi delli si na tubarkàlla ki nga xam ne mooy sutu yoro tengala ak ki nga xam ne mooy sutu labbo arbe jéeri tubarkàlla kooku mooy alaaj cënn ne tubarkàlla muy sow laa ne mooy paj mi def ci li nga xam ne mooy béatrice tubarkàlla changé ci kaw ak ci suuf yëpp koo koy alaaj Thierno Moule Sow nga xam ne dafa respecté ñi nga xamante ne tubaarkàll mooy patient yi génn millions yu bari nag tubaarkàll wut ci ay fauteuils yu nooy nepp ndax nag bu leen fàtte ne alaaj Thierno Moule Sow am na pajum VIP tubaarkàll am na li nga xam ne nag tubaarkàll ah neexute expliqué waaye kenn du alaaj Thierno Moule Sow tubaarkàll nga xam ne patient yi da leen respecté dugal leen ci clinique bu bees tàq bu seddu guy nooy nepp clim bi di furuj di fare koo koy alaaj Thierno Moule Sow tubaarkàll ñu dellu si waat rek ci mardi 2 mai incha allah rabbi bu àndeek dogalu suñu borom alaaj Thierno Moulay Sow dina reprendre ndax nag bu leen fàtte ne dafa nekkoon ci ouverture clinique bi ak ziar bi tubaarkàll jóge ci dem ci li nga xamante ne nag mooy weeru koor gi tubaarkàll nga xam ne chaque ngoon day defar ay ndogu yu am doole tubaarkàll bàyyiwul dara tubaarkàll ñëpp di fi ndogoo loolu moo téye woon activités yi waaye bi ñu génnee koor bi génn li nga xam ne mooy laylatu xadar bi tubaarkàll nga xam ne dafa dajale mbooloo mépp national bi ak international bi tubaarkàll woo territeur jox ko millions yu bari tubaarkàll ne ko nag ah bu kin xiif foo koy alaaj cenn mu lay kon defe naa ne patient yi ma doon déglu ak di ma taaxeerul ah ndigal ndigal la jib na mooy 2 mai mardi incha allahu rabbi bu àndeek dogalu suñu borom alaaj Thierno Moulay Sow dina reprendre lépp loo xamante ne tubaarkàlla activité la ah, Sénégal ngeen déggee ko noonu tubaarkàlla mbokk kooku nag mooy alaaj Thierno Moulay Sow fay na maa amruhu isa arada say an an yàqoola loxo Thierno Moulay Sow kun fa yakkoon nga xam ne lu mu ne kun suñu borom ne fa yakkoon kooku nag mooy borom duwaa jaabi di kun fa yakkoon di borom vite fait mu fekk ci yow tubaarkàll du koy dindi seppi ko teg ko nële moo xam jinne la moo xam dëmm la moo xam rab la moo xam cat la moo xam kumute kumute la lépp lu mu fekk ci yow da koy raxas ba mu set kooku nag ki ko yor mooy alaaj Cerno Mulay Sow borom kun fa yakkoon ki nga xam ne mooy doomi ajaratu Mariama Kamara bi tubaarkàll ak Mamadou Aline Sow tubaarkàll kooku nag tubaarkàll mardi lay reprendre incha allahu rabbi king of the king king all the king tubaarkàll mardi 2 mai su àndee kàttanu suñu borom defe naa ne patient yaa ngi may déglu nes tour ma dellu siwaat ak yéen tubaarkàll ak